bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, ci turu daairat muqaddamatul xidma ñu njiitul sëriñ Afiya Buso ñoo ngi nuyu waa daairatu masalikul jinaan ba Touba Toulouse France ci njiitul sëriñ Maam Benn Njaay sëriñ Cheikh Niang sëriñ Pape Ndaw sëriñ Baye Dame Lo ak mboolem jëwriñi sëriñ Tuubaa yi nekk France yëpp di am mbégte bu baax di leen jot li ndigal lu bàyyi ko ci sunu yaakaar tey ak ëllëg di as Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér jëm si ci ñoom ci fan yi ci ginnaaw mm, jëwriñ ju bokk ci daairat Muqaddamatul Xidma di kilifa di sëriñ Abdul Ahad Bousso moom sëriñ Thierno daf faa dem ñëw foofu ci Toulouse ngeen waxtaan ak moom ci wàllu forage boo xam ne am ngeen yéeni def ko ci Touba Bakhiya mu waxoon leen it doxin wi nga xam ne ñoom la Muqaddimatul mi di doxe te mooy lépp lu ñuy dugg dañ ciy am ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ bi kon nag suñ bu nañ ci waxtaan ak sëriñ bi lu mu ci joxe ndigal rek ñu doxe noona ci noonu nag la sëriñ Abdul Ahad wootee yàlla dogal na man mi may ndaw li nga xam ne mooy la yére bi yónni woon ci sëriñ bi bi ma demee wax ko ko it euh, mu daal ne ah waaw loolu de la xam naa xel daf ci eggutoon bu yàgg ba léegi dafa làq woon rek waaye ba mu jotee sax yàgg na kon nag nañu xam ne am nañ ci ndigal bu wér jot leen diggal li te soññi leen ci mu ba mu gaaw baat boobu la wax jot leen ndigal li te soññi leen ci ndax mu gaaw kon nag ndigal laa nga noonu jox nañ leen ko ñoo ngi leen ci soññ ci ndigalul sëriñ bi ni mu ñu ko digale woon ngeen farlu ci te góor góorlu ci ba baatub gaaw boobu mu tudd am ci am nañ yaakaar nag ne ginnaaw làmmiñam tudd na tudd na baatub gaaw yi su ngeen ci jubloo rek da ngeen ci nga am gàttanu bu sëriñ Tuubaa ba dana gaawee noo xam ne dana kawe seen jort ndax làmmiñam tudd na ko te lu làmmiñam tudd rek sunu borom daf ciy ànd kon nag ñu ngi leen di jottali ndigal li te di leen ci soññ ci ndigalam ndax moon wax ne nañ leen ci soññ ngir mu gaaw tey yaakaar na it da ngeen jóg taxaw ci tànk yi koy tax a gaaw ginnaaw tudd na ko ci aw làmmiñam ñoo ngi ñaan lépp sotti ci jàmm ñu jariñoo ko suñ tubaab mot li seen yéene te barkeel liggéey yi ba lépp ñu mën koo amee nañ ko bëggee jërë gen jëf wasalaamualeykum aleykum rahmatullahi wa barakaatu. dañu obligé changer programme bi comme ni ko xamee woon majalis généralisé waroon am waaye dañ koy bàyyi ba dimanche bi di ñëw ndax euh, dafa am ndigal loo xamante ni moo ñu fi dab euh, jugee ci euh, Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké fi yàgg loolu te ànd ak wér mu di. benn yitte boo xamante ni bi daanaka mën nga ni yitte yi doomu aadama yëpp la yitte yi jullit yëpp la yitte yi murit yi rawatina ñun murit mooy euh, jafe-jafe bi nga xamante ni bi tey armeer yi nekk baax yi daf ko am euh, ci wàllu ndox nga xam ne ñi nga xamante ne bii tey xam nañ euh, ku wàcc liggéey taxawaay bi nga xamante ne tey sa mbokku jullit yi nga xamante ne bii tey ñoo fi nekk war na nga daa taxaw ndox doon loo xamante ne tey mënu ci ñàkk loolu ñun ñëpp xam nañ ko jafe-jafe boobu nag Euh, waa daay daayira Muxaddamatul Xidma nga xam ne sëñ bi ñoom la dénk jumaay Tuubaa ji dénk leen tamit lu jëm ci armée yi mu nekk benn yitte boo xamante ne bii daal moom ñu ngi koy dund euh, depuis gis nañ ne bi ñu tëjee armée yu njëkk yi ba léegi dem ci armée yi jafe-jafe boobu ma nga fa euh, yàlla def nag bi ñu ci bi biñ ciy commencé gëj di ko xalaat di xool solution bi nga xamante ne bii tey mën na ci am ñu gis ni defar fa forage daal ak euh, benn système boo xamante ne bii tey dina tax ba forage am autonomie ci wàllu énergie nga xam ne du dépendre si comme denc bi nga xamante ne tey nii doomu aadama nit ki mën naa wàcc liggéey ñu denc ko moom du dépendre si waxtu wu nekk la mën a la mën a luy bett lay kon donc loolu mënut a nekk loo xam dañ koy aj ci euh, waxtu yeeg wala courant am naag disponible naag yooyu liggéey boobu nag bi ñu ko xoolee euh, ba wax ñu ko mu egsi ci daara yi fii nii benn. leen rek lañ ci lañ ci sàkk woon ne nag loolu lu mën a nekk la ndax loo xamante ne bii moom maanaam murit bu nekk mën nga koo def euh, sa pas-pas mën na mën na la may nga def ko euh, lu toll ci six mille sept mille cinq cent euros te toll mel noonu euh, bu ñëwee fii nii ñun lenn rek mooy tax ñu mën cee def jéego lenn rek mooy tax mën cee waxtaan mooy ñu am ci ndigal comme ñoom ñu ngi ci joon soog a dox ay jéego loolu moom moo nekkoon donc bi nga xamante li nga xamante ne xalaatoon nañ ko danañ ci am ndigal yàlla dogal na nag ndigal li am nañ ko ci kon ñu xam ne murit yi nga xamante ne tey ñoo nekk Toulouse sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké jox na leen ndigal ñu defar forage ci armeeru Baaxi du doon loo xamante ne bi nag xëy na euh, maanaam euh, euh, liggéey la waaye dafa doon loo xamante ne bi du du du loo xamante ne bi tey dañ koy jël mu nekk ay projet di yàgg loo xam te dañ ci gaaw jublu euh, diñaan yàlla am ci tawféex ba mu gaaw sotti ñu jàll si leneen te boo ko xoolee maam nekkul loo xamante ne mën nañoo yàqal dara waaw nekkul loo xamante ne bi tey mën nañoo yàqal dara si li nga xamante ne tey bëgg nañ ko ñu xam ne rek suñu tawféex la boo xamante ne bi agsi na jugee ci ki nga xamante ne moo fi nekk sëriñ bi mu jox ko waa Toulouse tax leen jox leen ko xëy na am na yeneen euh, détail ak information yoo xamante ne bi tey Euh, magum taalibe yi toog ni ñoom ñoo koy gën a jekku dinañ ko gën a leeral mbooloo bu ko defee ñun ñëpp rek ñu ubbi ci waxtaan xool nu mu gën a mu gën a nu mu gënee rek maam ñu defee ko noonu euh, te tasante tawfiix suñ xam naa damay bàyyi kàddu bi ak sëñ daw euh, bu ko defee après rek mag ñi ak sëñ Cheikh ñaa ñoom ñëpp ñi nga xamante ne tey ñu ngi ci jot nañ ci dox ay jéego ñu gën a leeral mbooloo mi ñi nga xamante ne bi tey moom moo ci nekk daal incha allah sëñ daw bisimilah bismillaahi rahmaani rahiim barke Borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu ñoo leen di siyaar mbokki taalibe yi di leen jégalu eh, di sant yàlla bu baax a baax eh, di siyaar ñëpp te di jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moom mooy xalifa général de Mouride eh, toftal ci kii nga xam ne mooy maam moo fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall di sëñ am di sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda Fall euh, taw Fall yi nga xam te moom mooy jëwriñu Moukhaddamatoul Khidma ji di sëñ Afia Bousso Eliman waaw gannaaw loolu ñoo ngeen di jégalu bu baax baax waaw li fi yegg si moom mooy ni ko comme ni ko jëwriñ leer leer ndax euh, ñun ñëpp ñi demoon Touba yëpp màggali xam nañ dafa xewoon ci ndox moomu ne ndox moom daanaka at mu jot la moom noonu noonu lay demee waaye ren jii moom daanaka daa dem ba jéggi dayoo ba law ba yegg fee nga xam ne moom mooy armée de Bàqe yooyu nga xam ne maanaam képp ku wàcc fa lañ lay yóbbu euh, mu demoon ba nga xam ne jaaxaloon na ña fa nekk lool ba ba ni ñuy toppatoo ñi nga xam ne ñoom ñoo wàcc euh, loolu nag ba mu amee murid yëpp maanaam daal mu def mu def leen ak njàqare boo maanaam ndox mi sax demoon na ba manqué ba sa jumaa ji sax. waaye bañ seetee loolu bañ wëññee ko yegg fi Toulouse euh, ñu doon ci kii maanaam seen cheikh mi maanaam moom moom ma ci njëkk a soññ am ci xalaat bu rafet ma ne ko ah sëñ Cheikh dafa mel ne xanaa moom sëñ bi dalaa yebal rek maanaam mm, mu ne mu ne daal xam naa buñ xalaatoon ut fa ab forage daal dina dina baax lool ma ne ko ah loolu de moom wax dëgg yàlla tawfiix la moom te tawfiix lay doon ci muriti Toulouse yëpp buñ ci jàppee mu ne kon nag léegi li ñuy def mooy comme daa daanaka ñun ay dongo rek lañ mënuñu jël benn responsabilité te mu waxtaan ñoom ca kilifa yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo nànk yoon wi. Euh, ba mu ko defee laa commencé def ay démarches ba yàlla def maanaam euh, euh, sëñ Abdoulaye Bousso yegg si fi bi mu fi see ma waxtaan seeg moom ni ko ah sëñ bi kat ñun dafa am loo xam ne dañ koo mébét ngir liggéey ko sëñ Touba foofu ci Touba Bakhia mu jëm ci wàll ndox. mu ne ah loolu de moom rafetlu nañ ko lool ma ne ko waaye nag dafa am loo xam ne de moom mu nuñ koy munuñ ci jël benn responsabilité te te waxtaan ci waxtaan ñu soog ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk daara ji ak ŋànk yoon bi ndax ñun ay dong dong lañ dañuy xaar ndigal dong ndigal moo ñu fi bàyyi mu ne kon léegi léegi naa mu ne mu ne moo léegi dinaa ci dox ba mu ko defee maanaam ba mu demee Espagne mu contacté waa waa Touba moom sëñ Afia nga xam ne moom mooy jëwriñu daara ji Moukhaddamatoul Khidma moom moo yor liggéey bi yëpp bi jëm ci jumaa ji jëm ci maanaam lépp loo xam ne Moukhaddamatoul Khidma da koy liggéey waaw bu bu mu leen ooyee jokkoog ñoom euh, ñu ne ñu ñun rafetlu ko lool ñu dox ci ay jéego ba am digal loolu waaye gannaaw bi ñu ci waxtaanee itam ñun ne maanaam ndigal loolu euh, bu amee lenn loo xam ne lii moom moo koy lal lu ko gën a leeral aussi dina ci baax ci euh, laa ootewaat euh, di ci laajaat beneen kii ndax dinañ ci am lu leen loo xam ne di moom moo koy gën a leeral waaye ginnaaw gi ak xat-xat yi léegi ñoom mujj nañu dem ci sëñ Muntaxa bi ñu demee ci sëñ Muntaxa waxi ko ko sëñ Muntaxa maanaam kontaan ci lool ne moom sax loolu maanaam daanaka euh, xëy na da cee xelama ci fattu woon rek waaye loolu moom tawféex joo xam ne la moom daanaka moom ñun da yàllaa ñu tawféexalal ci loolu maanaam mu kontaan ci lool ñaanal ñaanal nit yi boo tax na maanaam loolu dañ ma woo encore di ma ko waxaat di ma ko confirmer waaye des na ba léegi teen ma ne confirmation boobu bu ko defee maanaam bu ñëwee daayira buñ ci waxtaanee ba noppi dinaa oo sëñ sëñ sëñ dinaa oowaat sëñ Abdoulaye Bousso bu ko defee maanaam ci suma téléphone naa koy ooyee fii bu ko defee maanaam mu waxal ñu maanaam euh, nañ demee ci sëñ Muntaxa ak lañ fa ji léegi yëpp maanaam mu gën a leer ci mbokki taalibe yi maanaam loolu daal lañ fi andi woon euh, pour ñu bokk ñun ñëpp ñu xam ne maanaam day xiwal Mouride Toulouse Euh, waaye nag yàlla mun naay def tamit maanaam mu law ba fépp ndax maanaam murit ñi moom daanaka ñëpp ay daanukat lañ buñ déggee maanaam benn liggéey moom daanaka ñëpp dañ ciy bëgg a yebu rek ndax am na loo xam ne lii maanaam bu yegg si say loxo moom bu yeboo ñu def ci ak gaaw gaaw ñu gaaw ndax bu ko gaawatee am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw pour liggéey ko ndax na ñoo xam ne maanaam dañoo denc seen i koppar soxlawuñ ci dara lu liggéey Sëñ te liggéey yu mel nii moom dafa nekk liggéey njëkkante yoo xam ne yi moom ku ko yàlla wërsëgalee moom war nga ciy def sa kémta lay gàttal waaw loolu daal moom daal laa xamoon ne ci gàttal Euh, ma yemale ko fi ndax damay bañ kàddu yi gën a gudd kon nag ñu ngi leen di ñu ngi leen di jërëjëf yéen ñëpp di leen jégalu wasalaam jërëjëf kon ma jox kàddu gi sëñ Cheikh bu ko defee maanaam mu éclaircir ñi nga xam ne maanaam contact yi nga xam ne moom moo ko jotoon na dox ak ki nga xam ne moom moo yore wàllu liggéey bi yaa ngi jëf waaw salaamaaleykum waaleykum mbokk taal bi ñu jégalu bu baax nag ci jël kàddu gi waaw ah, waxoon naa sëñ sëñ Pape Ndao moom daanaka lu mu si jot a wax rek. yaakaar naa doy ay vidéo ndax yaakaar naa amoon na waaw ñun nag seen na yàlla dafa dogal euh, ci wàllu forage yooyu ñu amoon ci ay contact ba euh, demoon Sénégal fan yi sax doon gën a kii daal gëstu ci loolu léegi bi ñu bi bi euh, bi ñu ci laajtee daal waxoon nañ ñi ki kiñ ci jot parce que benn kii waaye am na am na ñeneen ñoo xam ni mën nañ leen contacter pour xam waaye daal dama laajte loo xam ni mooy gën a jàppandi ci wàllu euh, ci wàllu tuyauterie yeeg yooyu noonu. waa am na am na yenn détails yoo xam ne xëy na du jaral ñu koy leeral fii maanaam ci par rapport euh, fi mu war a situé yooyu xam naa du jar leeral waaye ndax étude bi il faut mu dem ba kooku il faut mu dem ba sur place pour mën a leeral kii xam ban béréb yooyu waaye. Euh, bi ma waxee daal ci wàllu njëkk mi ma wax lu toll ci 4 euh, millions ndax dama ne ko euh, da ngay def loo xam ni fourchette boo xam ni fourchette haute lay nekk estimation boo xam ni fourchette boo xam ni day leer duñ ko génn waaw léegi nag loolu mooy nekk forage bi la ca war ak yëpp xam naa nag après dina yittewoo système boo xam ne day tax mu autonome lu mel ni mooy panneau solaire yi pompe yi ci war a yooyu dañuy estimer ay ay ay su tegee du tege loolu day day day mën yomb kon daal ñu jàpp ni xëy na suñu amee cinq millions muy sept mille cinq cent euros wala lu ko weesu tuuti rek day daal di day daal di mën a bi waaw xam naa loolu laay mën a kii bañ a ci yeneen kii bi yooyu xam naa ñu jox kàddu Baye Moussa waaw ñu ngi jëriñ Baye Moussa ñam walaay ci wàllu <laughs> xam moom moom <laughs> eh, wax ne eh, li li tàbbi si ñoom suñu kaw ndax am na yoo xam ne rawante àddina bi moom yooyu loolu dara ay yoo nag ay kanam yu caaxaan loolu dara eh, ak xéwal dëgg dëgg mooy liggéey bi mel ni tàbbi sa kaw